mbokki internet yi safoo setaan AGT News dal leen ak jàmm na leen suñu chaîne saa su ne ngeen di am ay xibaar yu wér te wóor Cheikh Bara Ndiaye àdduna ci audio yi nga xam ne moom moo fuité woon loolee la ñeen di dégtal bu ñu noppee daal di dellu siwaat ci suñu xibaar daal di koy jàmbar benn par benn. yow say waxa wala du say wax loolu ñëwagoo. waaw audio yi. waa euh, su may kaddu la. say kaddu maanaam nekkul ne dañoo jël beneen kàddu nuroog suma kàddu fekk du man déedéet audio yi samay kàddu la. yow euh, man maa ci wax. bonte nag euh, am na loo xam ne dañ ko ci naturel maanaam nekkul audio yu naturel. mooy na ma ko waxee dañ koo jël jël fee jël fee jël fee dajale. Hmm. fexe ba boole ko ba mu génnee ab jumla li arab di wax la hmm. mu dégtal ko nit ñi. waaye nag amul benn problème comme que lépp samay kàddu la tamit. Hmm. lu ci mën a nekk rek soo ma ko laajee. dinaa la ci indi ay leeral comme nu mu ko mënee. lu wóor tamit nga xam ne dama koy wax. mooy nekkul loo xamante ne dama ko waxoon ak sama nit mu enregistré ma wala ma yónnee woon ko nit doon ko nëbb mu génn déedéet. dafa nekk ne dañoo nekkoon ci groupe boo xam ne depuis 2014 defe naa wala fay def mu nekk ñu tuddee ko xel am koom la. xel am koom xel am koom la googu def naa ne hmm, oustaz Mbacke Sylla rek. Hmm. maanaam ma nga ci biir. Hmm. Euh, ku mel ne tey Mamadou Diop Decroix. daanaa ko fa de parce que invité woon nañ ko fa mu ne am waxtaan ak moom. ku mel nañ ko fa daan ko waxtaan ak moom. ku mel ne Mamadou Si Tunkara. ay Maxtaar la Kagula. Euh, ñoom oustaz Bamba Ndiaye radiyallahu anhu yàlla ko yàlla bari woon ay sart lool nag. yàlla def man damaa xaw a dëng. ñu bokk ci ñu yoole sart yu ñu bari ñu ñu dàq ñu. Hmm. ñun ñi mer gemm nag dem defaat suñu beneen groupe tudde ko xalaat. waaw voilà am na ci groupe audio yoo xam ne ci xalaat lañ ko doon waxtaane hmm. am na ci yoo xam ne ci xel am koom la ji ko waxtaane hmm. am na ci yoo xam ne tamit ci li ma jàpp. mooy waxuma ko ci benn groupe mais euh, nit laa ci waxal ñu dagg tuuti. boole ko kiyee taxale ko génne ko noonu la daal waaw d'accord ñoo ko déggandoo mu nekk kàddu yi nga xam ne Cheikh Bara Ndiaye yëkkati na ko ñeel ojo yi nga xam ne moo fuite woon juróom coow lu rëy yi fii ci Sénégal mbokkee tax na ci safoo setaan AGT News abonné leen suñu chaîne saa su ne ngeen di xibaar yu wér te wóor